mbokk yi teew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu defal xéewal ak mucc sunu yonentu muhammad salallahu alayhi wa sallam defal ko waa këram ak i saxaabaam ak képp ko jaar ci seenu xàll ba bis yàlla na yàlla boole ci ñooñu comme ni ñu ko baaxoo ci euh, at mu nekk saa bu ñu koree ba ci ëllëg sa mbootaay gi ñuy tuddee jamiyatul birri wa ihsaan ñoo dellu waat ak yéen fas yéene amal waxtaanu diine waxtaanu diine woowu nag mu ngi të nar a tënku insha allah ci tomb bu ñuy wax ad daawatu ila tamassuki bil qur'ani wa fadli maanaam woote jëme ci mooy ci alquran ak ngëneel yi nga xamante ni bii loolu la amee xam naa ni euh, bala ñuy ñëw di xam xamle ki ko nar a def dañuy ñëw ci sunu doom bu ñu neexee ni sunu doom sunu sët bàyyi ma jëmbi mbuub mu nekk kenn koo xamante ni mi ci meññitu liggéey bi la bokk ndax suñu mbokk sëriñ boobu moo daan toog fii di ànd ak ñun di ko euh, di bokk ak ñun liggéey bi yàlla dogal mu nekk fële ca kaw kii di sama ndijoor moom lañuy ñuy jox incha allah muy bàyyi ma jimbi mbubb mu jàngal ñu alquran su ko defee ñu xam le xamal leen kan moo ñu defal waxtaan wi jox ko kàddu gi incha allah te ñu ñaan ñu ñëpp ñu xerewlu ñaan yàlla fii ci làmmiñam ba li muy wax ñu mën koo dégg te yàlla mën ñu ci yàlla jëriñ ñu ci kon euh, bàyyi ma jëm incha allah yaa ñu jàngal lu la jàpp na ci ay ayat min xik dikril xakim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم yal na yàlla barkeel te baril say kem waaw comme ni ñu ko waxe woon waxtaan bi mi ngi lalu ci tomb bu ñuy wax woote jëme ci mooy ci al alquran ak ngëneel yi nga xamante ni bii amee na ko sunu mbokk bu ñu neexee ni sunu rakk bu ñu neexee ni sunu doom Ibrahima Khalil ñaan doomi Oustaz euh, euh, Madiara ñaan mi ngeen xam fii ci kër Ibra ñaan waaleykum salaam wa rahmatulah mu bokk tamit ci ñi nga xamante ni bii wax dëgg yàlla bañ leen xamee ba léegi ci terrain bii lañ leen xam maanaam jàng ak jàngale ak tasaare xam-xam ak gëstu ko moom yàlla mi ngi dogal mi ngi jàngee fii Thiès al Azhar fa la amee bac ginnaaw bi nga xamante ne bii am na BFEM El Hadj Omar mokkale al Quran daari Fass Touré ngi ci njàngale mi am na ca diplôme ba nga xamante ne bii moom lañ ca war a am te mooy CAP moo ci gën a kawe yàlla dogal na tamit am na licence ci la adab wala ulum al insaniya fële ca UCAD mooy université de Dakar ma ngay continuer tamit di jàng ñu ñaanal ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala fàcce ñëpp yegg yàlla may ko mën caa yegg mbaa ba mbaa fu ko raw te mu jikkoo te ji diine ji kon xam naa ni loolu doy na cib xam ne sëkk dañ koy bàyyee kàddu bi rek incha allah mu leeral tomb boobu nga xamante ne bii moom lañ bëgg mu leeral ko xam naa nag comme jàngalekat la moom te waxtu waa ngi dem am na technique bu mën a tënk ba nga xamante ni bii li mu bëgg a joxe dina ko joxe ci waxtu wi incha allah wa jazakallahu xeyran wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa taabiin wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnati ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli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 sante suñu boroom subhaanahu wa taala cant ga yelloo ak màggam ga ñu ngi julli di sëlmal ci seydina muhammad sallallahu wa sallam di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala yàlla na dott ci kawam waameew njëgal ak xéewal ak képp ku topp njubam nga ila yawmi diin bu ko defee ñuy nuyu kilifay dëkk bi di ko doore ci xalifa général bàyyi Abdourahim Seck di jaarale foofu ki nuyoo bi di nuyoo mbooleem kilifay dëkk bi bàyyiwuñu kenn di nuyu tamit mbooleem ñi teew ci jataay bi di leen wàccee seen wàccuwaay seen mbokk mi ngeen àndal tey di Ibrahima Khalil Niane ànd ci benn bind ci fàttali dara ci suñu diine comme niñ ko baaxoo demal comme niñ ko baaxoo amale fii ci bërëb bi muy ay jataayu fàttalante ci wàllu diine tey jii nag ñi ngi waxtaane ci at tamassuku bil quraanil karim jàpp ci al quraanul karim mbokk yi dañoo toll ci ab jamono boo xamante ni àdduna jaxasoo na am na ak lëmbaajoo gu goo xamante ni am na am na ak jaxasoo gu am ci wàllu xalaatin am na ak jaxasoo gu am ci jëflante yi am na ak jaxasoo gu am ba ci borom biir xam-xam yi ci boppam bu demee nag ba àdduna toll foo xamante ni boroom xam-xam ci boppam ñoo war a mën a jaxasoo ana kon ña nga xamante ni amuñu xam-xam te jànguñu diine yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ni islaam dafa doore tumuraanke noonu la tàmbalee te ci tumuraanke googu mu tàmbale foofu lay mujje wat lislaam bi muy tàmbale yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw ñëw indi andi alquran waa makka mënoon nañoo dégg lu nekk mënoon nañoo supporter lu nekk ci yonent bi ba ci sax def ko buur mu jiite leen waaye nanguwuñu woon dégg idée yi nga xamante ne alquran moom la doon saxal moom la doon jëmmal kon ñu yëg ni lislaam ci foofu la tàmbalee loo tax ñi ko gëmoon xeetu coono bu ne moom lañ leen daan teg xeetu mitital bu nekk ñii ñu rey leen ñi ñu génne leen seeni kër ñii ñu tàqale leen ak seeni bokk ñii ñu tàqale leen ak seen suuf si nga xamante ni fa la ñu dëkkoon ngir lan ngir bëgg a dund seen diine ngir bëgg a jàpp ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa boobu mu waxaat nag dafa ni foofu la jëmaat diine ji foofu la jëmaat mooy ci tumuranke googu mu tàmbale woon tumuranke googu foofu lay mujjewaat te tumuraanke googu jàpp naa ni fi mu toll ñu ngi koy dund mooy toll nañ ci diine lislaam foo xamante ni nii nañ ci dund foo xamante ni lu nekk nga mën a wax ci àdduna ñu supporté ko xeetu xalaatin bu nekk xeetu xeetu idéologie bu nekk xeetu aw tëralin wu nekk mën nga ko wax ñu supporté ko ba mu des lislaam ba mu des alquran loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko laajee ni ko maanaam ci tumuraanke jooju ci nan lay men ñan ñooy ñi tumuranke ñooñu mu ne ñu tumuranke mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp ci alquran ñoom ñoo jàpp ci sunna ñoo jàpp ci li mu fi bàyyi kon ci jamono jii ñuy waxe jamono jii ñuy waxtaane jamono la joo xamante ni tumuranke dafa am ci alquran ci jàpp gi ñu ko war a jàpp ak ci téye gi ñu ko war a téye suñu maam aadama bi ko suñu boroom subhanahu wa di wàcce ci kaw suuf daf ko wàcce gannaaw la doxoon digganteem ak iblis mu ni ko nag soo wàccee ci suuf dinaa la fa yónnee ak njub boo toppee ci njub googu yow ak ñi nga xamante ni ñoom ngay meññ ajjana fa ngeen jëm si te njub googu suñ borom subhaanahu wa daan ko jaarale ci ay yonent di ko jaarale ci ay yonent ba yonent bi mujj ci jamono mu jox ko njug googu di buumu yàlla gu dëgër gi muy alquran nga xamante ni ku bëgg mucc ci buum googu yow ci ngay jàpp mu teere jeeg yow fa nga xamante ni ki moom mooy àjjana looloo tax mbokk yi solos waxtaane lii nga xamante ni mooy jàpp ci alquran téye ci lu am solo la am solo goo xamante ni ni weesu na weesu na sax di doon loo xamante ni dañ koy war a jàngale rek waaye dafa weesu loolu ba àgg ci loo xamante ni dafa jar ñu di ko wooteel dafa jar ñu di ko campagnal ni nga xamante ni nit ki bu bëggee falu ci suñum réew comme niñ ko xamee daf koy jaral mu dugg ci ay mbokkam jaral ko mu wuti ay milliards investir ko pour lan pour ndax moom na falu ndax nañ ko fal dara lu raw loolu nag moom la jar ñu campagneal tey alquran ndax nit ñi mën cee dellu ndax nit ñi ki di mën cee jàpp alquran jooju nag buñ ko bëggee xamle xamle bu gàtt dañuy dikk rek ci borom xam-xame sharia yi nuñ ko xamle dañu wax ni huwa kalaamullahi almunazzal ala xaatami almursalin ala xaatami almursalin bi wasitati alamini jibril alayhi salaam almaktub fi almasaxif almahfud fi alsudur almanqul ilayna bittawatur almutaabad bi tilawatihi almabdu bi suurati alfaatiha almuxtatam bi suurati annaas alquran ji ñu waxtaane tey mooy wax yàlla ji nga xamante ni moom la wàcc ci yonent bi mujj ci yonent yi di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon alquran kon ci wax yàlla la aw melokaan la ci suñu boroom waaye alquran du mbindeef li ñu wàcce woon ci yonent yi jiitu kenn du ko tudde alquran waaye li ñëw ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lañu tudde alquran ki ko doon wàcce ci sang bi di jibril salaam mi nga xamante ni moom la ñu tudde al amin amin mooy ku wóor mooy ki gën a wóor ci kaw asamaan mooy tamit téere boobu ñuy gis ñu bind ko ci kaamil bi te di ko mokkal ci dënn yi am mbooloo mu baree bare bari tuxale ko ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon ko saxaaba yi saxaaba yi noonu ñu ko jàngewoon ñu tuxal ko jàngal ko ñeneen di ko tuxalante di ko tuxalante ba ñu jot ci tuxalin wi nag dafa nekk ay mbooloo yu baree baree bari ñoo koy tuxal ba nga xamante ni du am ak werante du am ak sikki sàkka mooy li nga xamante ne tamit tamit ak jàng ko ak jaamu yàlla la jëmmi jàng xuruf yi rek ak jaamu yàlla la tàmbalee fatiha di bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ba jeexee minal jinnati wan loolu noonu kon ñuy gis ci kaamil bi loolu la ñuy tuddee alquran alquran nag suñ borom subhaanahu wa da ko wàcce ci xeet wi nga xamante ni mooy xeet wi mujj di xeetu Seydina Muhammad mu nekk ab katolog mu nekk ab menu suñu borom subhanahu wa def ci doomu aadama naka la mën a def ba dundam gi muy dund fii ci àdduna nekk ak dund gu mucc ayib dund gi muy dund àllaaxira tamit nekk ak dund gu mucc ayib loo tax suñu borom lépp lu ñu soxla mu def ko ci alxuraan ba bàyyiwu ci dara moo xam lu jëm ci wàllu pas-pas la lu jëm ci wàllu ay tëralin yu ñu tëral lu jëm ci ay jikko lu jëm ci ay teggin lu jëm ci xabaar yi ñu fi jiitu woon lu jëm ci xabaar yi ñu fi mujj ak lépp loo xamante ni doomu aadama soxndoo na ko ci ak dundam suñ borom subhaanahu wa mi ngi ko dëxañ ci biir alquran téere la boo xamante ni téere la bu wóor téere buy wóoral téere bu am ak dal téere la tamit boo xamante ni suñ borom subhaanahu wa taala daf cee daf koo teg def ci li ñu tuddee défi daf cee bàkku suñ boroom subhaanahu wa taala daat ni alquran ji ndax yonente bi salallahu alayhi bi mu ñëwee andi alquran alquran ni mu yéeme woon waa Makka ni mu yéeme woon arab yi ak arab yi li leen yàlla dénk ci làmmiñ wu ñaw li leen yàlla dénk ci mën a wax daf leen a yéem a yéem a yéem ba tàmbale nag lu nañu di ko wax dafa am koy jàngal guddi daa am koy jàngal lii de xam naa ay jinne ko deey xam naa day gisaane waaye ñoom moom leeroon na leen ne moom lii moom du waxi du waxi nit ñoom leeroon na leen ba mu leen leeree nag ba pare suñ borom subhaanahu wa teg ab défi daal leen bu fekkee da ngeen ni lii dañ koo sos moom yonente bi sallallahu alayhi wa fexe leen ba dajale lu ngeen manti am ngeen indi lu mel ni alquran loolu suñ borom subhaanahu wa taala di wax ci suratul isra قل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ni mboolem luy nit ak mboolem luy jinne bu ñu daje woon ak seeni pexe ak seeni man-man ak lépp lu ñu am ñu dajale ko di jàppalante nag di diisoo di bind ak di far seen moyens yi leen yàlla jëfandikoo yépp ñu ànd ko di ci liggéey mënuñoo fexe ba indi lu mel ni alquran ak luñ ci manti def ak luñ ci manti jàppalante taxul ñu def loolo suñ boroom subhaanahu wa yemul foofu mu dellu siwaat ci beneen aaya bi nekk ci suratu Hud am yaquluuna iftaraahu قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا وادعوا من استطعتم من دون الله kuntum saadiqin mu ndax dangeen a wax ni alquran yonent bi da koo fent bu fekkee li ngeen di wax am na suñu borom subhanahu wa taala daal di daal ni leen fexe leen ba indi fukki saar fukki saar rek yoo xamante ni mel na ni fukki saar yu ne ci alquran te ngeen woo ku leen neex ku dul yàlla daal na ngeen ko ci boole bu fekkee ki wax ngeen dëgg ndax daa tax ñu indi ko taxul ñu indi ko taxul ba tey ñu mën a indi lu mel ni fukki saar ci alquran doon di fukki saar yi gën a gàtt la suñ boroom subhaanahu wa taala yamu fa wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhadaakum min duni llahi in kuntum saadiqin ni bu fekkee da ngeen a am sikki sàkka sax ci alquran ji nga xamante ni maa ngi ko wàccee ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi waxatuma indi leen lu mel ni moom waxatuma dara andi leen lu mel ni wenn saar ci saaru alquran wenn saar ci saaru alquran loolu maa ngi ci suuratu baqara lu mu ca teg fa in lam bu ñu ko deful wa lan tafaalu te duñu ko mas def ba faw kon mënuñoo indi lu mel ni alquran walan tafaalu mënuñu koo def mënuta nekk doomu aadama di bind lu mel ni alquran ndaxte alquran melokaan wi mu mel suñ borom subhanahu wa ni mu ko bind li mu ci def lépp lépp lépp ci ay xam-xam li mu ci dëxëñ xelum doomu aadama ba tey jii àggu fa ba tey jii àggu fa ba tey jii xelum doomu aadama mënta daj loolu ci siècle bi ñu nekk Cheikh Mohamad daa am benn ab gëstukat boo xamante ni li tax mu dugg ci lislaam mooy baatu wa anzalna alxadiid suñ borom subhaanahu wa taala nee na moo wàcce feer feer yi ñuy yor nii di ko utiliser ay weñ weñ suñ borom subhaanahu wa taala nee na moo ko wàcce ci kaw ah yow ay feer ci suuf lañ koy jëlee ñun nan la wàcce ci kaw ndega def feer Oustaz Mouhamad li koy defar maanaam tàngaay wi koy wi mën a togg feer suuf àttanu ko boo ko xaajoon ay téeméeri téeméeri téeméeri xaaj benn bi bu wàccoon ci suuf suuf si lépp ay xëm ak li fi nekk ndegate suñu borom subhaanahu wa ci yeneen planète lay jël feer yooyu di ko togg bu ko toggooy mu seey nekk ci jaww ji li ñuy tuddee attraction suuf si xëcc ko mu dugg ci biir mu manq ko mu nekk ca biiri biiri suuf foofu lay dajaloo bu ko defee nag ñun ñu gas ko ba jot ko daal di jël feer boobu ci suuf lañ koy jële waaye ci kaw la ko suñ borom di lii ma dugal ci lii ma ko dugal ci lislaam baatu wa anzalna alxadida yàlla nee moo wàcce wàcce ak weñ moo ko wàcce allahu akbar waa mbokk yi kooka moom daa gëmul dara la gëmul dara ñun ñi gëm yàlla nekk ci alquran guddi ak bëccëg suba ak ngoon alquran di tuubloo ay woromi xam-xam ñun xamuñu dara lu dul ni lii ci yàlla la jóge moo tax waaye jotul ñu ngoy ci alquran jotul ñu jàpp ci alquran moo ndax waaye ndax jotul ñu téye alquran ndax waaye jotul ñu xam li ñu yor Seydina Omar ibn Khattab dafa daan wax naan képp ko yor alquran di naw leneen lu nit yor wala ngay xool leneen lu nit am moo xam ci nu mu mënti ne moo xam aw tëralin la wala lu mu mënti nekk mu ni billaahi yaa tuutal lu rëy alquran ji nga yor bàyyi ko fi di wuti leneen yaa tuutal lu rëy waaye tamit yaa rëyal lu tuuti ndax leneen la ngay xool ba di ko naw te du alquran loolaa tuuti te nga rëyal ko yow loo tax suñu borom subhaanahu wa taala xabaare ñu alquran moom wax alquran moom mooy lan andil ko ci ay melokaan yu bare bare bare bare muy wax ci suuratu Shu'ara wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruuhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisaanin arabiyin mubin di wax ni wa innahu la tanzil li ak wàcce loo xamante suñ borom moo ko wàcce kan moo ko wàcce rabbil alamin borom bindeef yi ki bind mbindeef yi xam leen ki bind mbindeef yi xam leen bind àdduna ak lépp lu fi nekk xam lépp ki dara umpul ki dara dara dara umpul wa ma tasqutu min waraqa ba ci aw xobu garab wuy wadd xobu garab boo xamante ni dagge na ca garab ga dagge na ca garab ga nekk ayati wala afganistan wala fu manti dagge di rot ci suuf laata muy rot suñ borom subhanahu wa xam na ko loolu ump ko dara dara dara ump ko borom mbindeef yi nag ki mel nii moo bind alquran moo ko wàcce wàcce ko ci xolub yonent bi sallallahu alayhi wa ki nga xam ne mooy ki gën a wóor ci suuf jox ko jibril mi nga xamante ni moo mooy dox diggante suñu borom subhanahu wa ak yonent yi moom la yàlla di yebal muy ki gën a wóor ci kaw asamaan ngir yonent bi sallallahu alayhi wa jubluwaay bi di xopp nit ñi di leen xamal li leen di jariñ seen àdduna mu di leen xiirtal pour ñu nekk ci di xam li leen di yàqal seen àllaaxira mu soriloo leen ko waaye nag mu wàcce ko ci làkku arab suñ borom subhanahu wa nee na moo tànn làkku arab bi làkku arab bi alxuraan wàcc moo ko tànn bi lisaanin arabiyyin mubiin boroom xam-xam yi yëngatu ci wàllu làng nee nañ araab maanaam ci baati araab yi li mu àttan ci maanaa ni ñu mën a duggantee li ñu mën a jur li nga ci mën a jiital man koo teg ci ginnaaw nee nañ arab li mu nangu weneen làkk wu ko nangu amut suñ borom subhanahu wa taala mu tànn làkku arab wàcce ci alquran alif anzalnaahu ilayka lituxrija annaasa min alzulumaati ila annuur بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد suñ borom ba tey mooy xamle alquran nee na ab téere la boo xamante ni anzalnaahu ilayka maa ko wàcce ci yow yonente bi salallahu alayhi wa ngir lan ngir nga génne nit ci réer ci réeru bokkaale ci réeru ay tooñ ci ak lëndëm gi nga xamante ni ci lañ nekkoon yóbbu leen ci leer waaye ci ndigalul yàlla mi nga xamante ni al aziz mooy ki màgg mooy ki am kàttan alhamid mooy ki yelloo ñu di ko sant kon suñ borom subhanahu wa foofu xamal nañu alquran xam li ko tax a jóg ñu ci bari nag ci ñun dañoo jàpp ne alquran daal moom ab téere la boo xamante ni xëy na nit mën naa nekk ci àdduna du ko laal du ko jàng wala du dara waaye su faatoo ñu di ko jàngal ak di ko ak di ko raayoo ak di def ay yëf-yëfaan yoo xamante ni yàlla santuñu ko yàlla lim sant ci alquran mooy ñu di ko jàng li ci nekk di ko jëfee lii mu la sant nag boo ko jëfewul ba dem ba leneen am nga bëgg koo jëfandikoo ci geneen anam est-ce que dina la jariñ ndax dina la jariñ suñ borom subhanahu wa ba tey mu continuer di xam xamle alquran يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين suñu borom subhanahu wa taala di wax ne e yéen e yéen nit ñi yéen nit ñépp dikkal na leen jóge ci seen boroom ak waaraate waaraate googu la mooy alquran waaye mu làmboo ak saafara ci li nekk ci biir dënn yi alquran dafay faj ay ay jàngoro yi nekk ci biir xol yi yi nga xamante ni mooy dugal nit sawara alquran da koy faj te jàngoro yooyu mooy ay jàngoro yoo xamante ni yenn yi day jóge ci ay lënt nit ki dafa gëm lu mu warul a gëm wala yu jëm ci bànneex nit ki dafa topp ki di bànneexu bakkanam ñaari jàngoro yi mooy jàngoro yi ne ci xol te nekk nag jàngoro yi gën a bon nag niñ koy waxee naan jàngoro yi nekk fii ci àdduna amul benn bu ci rey nit moom di ko yóbbu sawara du sida du corona du ndem si yàlla korona du beneen du beneen du beneen du beneen feebar yooyu yépp bu ci dal nit bu ko rey du ko yóbbu sawara waaye feebar yi alquran di saafara bu ci nit faatuwaale woon mën na ko yóbbu sawara wala ayaadu billah alquran moomu nag am ay mbir yoo xamante ni am da koo jagoo mbir yooyu bokk na ci suñu borom subhaanahu wa taala ko wàccee wàcce ko ci diiru ñaar fukki at ak ñett te loolu lenn ci boroom xam-xam yi dañoo wax ni loolu alquran rek ko am waaye yeneen téere ya fi jiitu woon dañu daan wàccandoo donte kon loolu am na lenn boroom xam-xam yoo xamante ni ki dàq nañ loolu ku demee ni ibnu Ashur ni yéefar yi li ñu doon wax yonente bi sallallahu alayhi wa naan aka neexoon ñu wàccendoo alxuraan rek ci moom aka neexoon ñu wàcce alxuraan mu doonandoo ci benn téere rek ni ñum rek daal di wàccandoo suñu boroom subhaanahu wa ni ko déedéet li tax ñu wàccee ko par ndànk-ndànk par ay xew-xew par ay événement loolu xikma la boo xamante ni suñu borom subhaanahu wa taala ki di moo ko ci def loolu mu ngi ci surat furqaan alquran bokk na ci li mu jagoo li nga xamante ni yeneen téere yi ko jiitu amuñu ko woon mooy suñ borom subhanahu wa taala dafa garanti ni mooy sàmm alquran dafa garantir ni mooy sàmm alquran ba ilaa yawmi diin alquran du soppeeku nañ ko doon jànge yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko jële woon ci Seydina Jibril Seydina Jibril jële ko woon ci suñu boroom noonu lañ ko jàng di ko donnante di ko donnante ba suñu jonn yàllay tey ji nga xamante ni waxuma la benn xaraf waaye wenn masque wu ci soppiku amu ci Muhammad mii toog ci sama wet yàlla na ko yàlla sàmp am na càllale goo xamante ni dem na ba ci suñu borom subhaanahu wa càllale gu ñaata nit la ah Muhammad gu ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñoo dox digganteem ak yonent bi tegu ci Jibril Jibril jële ko ci suñu borom subhaanahu wa te mi ngi fii ci senegal est ce que mas ngaa dem màkka kon loolu kon yéeme na de yàlla nga dem yàlla nga dem demati ñu dem demati ñu nit yéen yàlla ngeen dem demati allahuma amin te mi fii ci senegal nekk ci dëkk bu roq bu tudd Thiénaba suñu borom subhaanahu wa noonu la sàmme alquran ci dënn yi foo ko jàng loo ci yàq ñu gàggante la te mu doon ag géej gu yaatu goo xamante ni li ci nekk ci ay riwaayaat nekk ko ci ay turuq dem nañ ba di ko lim ci junni wala mu ëpp ko yoo xamante ni yépp ci yonente bi sallallahu alayhi noonu la jóge yonente bi sallallahu alayhi wa noonu la ko jëlee ci jibril alayhi salaam jibril alayhi salaam noonu la ko jëlee ci suñu borom subhaanahu wa taala ba pare suñu suñu borom subhaanahu wa taala teg ci garanti teg ci cachet inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafiduun yàlla nee na ñun ñoo wàcce alquran wa inna te maa ngi dëggal ni la xaafiduuna la alquran ñoo koy sàmm téere bi am na lu ëpp junni at ak ñeenti téeméer ba tey benn xaraf kenn mënu ko cee soppi loo ci modifié boo moytul mën ngaa nekk ca dëkk ba gën a ruqe ci àdduna boo moytul xale bu ndaw ki moo lay gàgganti loolu beneen téere amu ko ci téere asamaan bi loolu alquran dong ki moo ko jagoo alquran tamit moom moo jagoo ñëw folli yeneen téere yi yeneen téere yi ko fi jiitu woon mu folli leen ndax suñ borom subhaanahu wa daf bi mu yónnee yonent yi kenn ku ci nekk dafa jël ci ab kóllëre am na yonent buy ñëw ci mujjug jamono bi ngi tudd muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu la fekkee ndax di nga ko topp nga ni waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kum fi fekkoon ci yonent yi ñépp ci sharia lañu nekk ñoom yonent yàlla saa bu wàccaatee ëllëg ndax day nekkaat ab yonente bu bees déedéet ci sharia bi nga xamante ni ci la ñuy dund moom lay nekk ndax yonente bi sallallahu alayhi wa jii mu indi moo fi nekk ba ilaa yawmul qiyaama loolu tamit alquran dong moo ko jagoo alquran tamit moo tëj tamit mooy li nga xamante ni suñ borom subhanahu wa taala nee na moo ko garantil boppam comme niñ ko waxee woon euh, nee na tamit kenn mënta indi lu mel ni moom ba ko waxee léegi ëpp na junni at ak ñeenti téeméer nit ñi nag léegi xam naa dañoo tàyyee sax indi lu mel ni alxuraan léegi moom kit ñi ngi ci yeneen ak yeneen ak yeneen ndax loolu maanaam ab defile bu fi sax ba ilaa yawmi diin suñ borom subhanahu wa nee na du ñu indi lu ma a mel ni moom ba ilaa yow diin yi alxuraan tamit bokk ci yi mu jagoo nekk message boo xamante ni suñ borom subhanahu wa taala da ko adressé nit ñëpp nit ñëpp moo xam ñi gëm moo xam ñi gëmut kenn ku nekk adressé na la alquran yonente bi sallallahu alayhi suñu borom subhanahu wa taala ko ci xeet wi yépp yónni ko ci araab yi rek yónni ko ci nit ñu ñuul ñi yónni ko ci kenn ak ci kenn da ko yónni ci da koo yónni ci mbindeef yépp loo tax suñ borom di melal alquran ci suratu nuux naan wa ma huwa illa dikrun lil alamin alquran nekkul lu may ak fàttali ñeel bindeef yëpp ñeel bindeef yépp suñ borom subhaanahu wa taala alquran tamit bokk na ci li mu jagoo bàyyiwul dara bàyyiwul dara loo xamante ni suñu yiwu àdduna mi ngi ci lu dul nii digal nañu ko bàyyiwul dara it loo xamante ni suñu ak lor mi ngi ci àdduna àllaxira lu dul tere nañu ko soriloo nañu ko loolu tamit alquran rek moo ko jagoo bu ko defee kon ñu xam ni nag thème bii nag ñuy dugg dëggantaan di jàpp alquran dafa am jenn maana lan mooy jàpp alquran lan mooy jàpp alquran jàpp alquran maana tamassuk al bi bihi wal amalu bi mooy nga gëm alquran alquran li mu làmboo ñu gëm ko lépp lu ci nekk ñu dëggal ko ak di ko jàng di ko settantal wa qiraatihi maa tadabbur ak di jàng alxuraan ak di ko settantal wa daawatu ilayhi ak di woote nag di jëme ci alxuraan lii daal ku ko dajale xamal ne yow jàpp nga ci alxuraan daf ci am ay kuréel yoo xamante ni ci lislaam bi day faral di yees di bees ba am ci ñoo xamante ni ñi ngi tuddee si seen bopp alquraani yuun alquraani yuun nee nañu tur woowu sax di kii di mérito ko nee nañu daal ñoom <clears throat> li nekk ci alquran rek la ñuy jëfee lépp lu ñëw ci alquran daal dinañ ko jëfe lu ñëwul ci alquran ñoom duñ ko jëfee nee nañ daal ñoom xamuñu sunna duñu jëfe sunna li tax may ñëw foofu mooy ngir wandale la alquran ak sunna ci thème bi ñuy waxtaane kii benn lañu fu ma ne alquran rek sunnaa ngi ci biir waa ñooñu tontu bi ñu leen njëkk a tontu rek ñoom de xanaa duñ julli moom wala bu ñu julli ñoom nu ñu jullee am nañ seen xeetu julli bopp goo xamante ni wuute na ak ni ñu jullee ñun yoo xamante ni wuute na ak ni ñu jullee ñun dañuy wax ne ñoom alquran rek la topp te ak ñoo sori alquran loo tax yonente bi sallallahu alayhi wa di wax ci benn xadis bu nekk ci sunu at-Tirmidhi ayaxsabu axadukum wa huwa muttaki'un ala arikatihi wa qad yadunnu an allaha lam yuxarrim shay'an illa ma fi alquran ndax kenn ci yéen day soonu ci ab lalam rek jàpp ne yàlla araamalul dara luru li nekk ci alquran ala dama ni wa inni wallahi qad amartu wa waadtu wa nahaytu an ashyaa innaha la mislul quran aw akthar yonente bi sallallahu alayhi wa ni giñ naa ci yàlla ni damay digle ak di tere ak di waare ci ay mbir yoo xamante ni ab dayo bi alquran am la am ak garaat bi am la am wala sax mu ëpp ko kon suñ ne jàpp ci alquran liñ ci jublu mooy jàpp ci alquran ak sunna te lu tax ndax alquran li mu la njëkk a digal mooy nga jàpp ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente nga xamante ni suñ borom subhanahu wa taala moo ko jox ab garantie suñ borom subhanahu mi ngi wax ci alquran man man tawalla fama arsalnaka alayhim xafida képp ku topp yonent bi topp na yàlla képp koo xamante ne rek daa féeteerlu daa bañ kooko suñ borom subhaanahu wa nee na yonent bi yow def nga li nga war a def yónnewu ma la ci àdduna pour ngay garde nit ñi nag ak di leen surveiller kenn ku ne yow ngay xool lu mu def déedéet suñu borom subhaanahu joxaat yonent bi sallallahu alayhi wa ab garanti wa in tutiicuhu tahtadu kii dey bu ngeen ko toppee di ngeen jub joxaat ko ab garanti wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du waxe bànneexu bàkkan lu mu wax suñ borom subhanahu wa taala moo ko waxyu kon fu ñu ne jàpp alquran liñ ci jublu mooy jàpp alquran ak sunna ndax ñoom ñaar ñooñu ki wuute wuñu tàqalikoo wuñu benn lañ ñoom ñaar ñoom la ñuy tudde yi mooy li jógee ci kaw asamaan wàcc ci suuf mooy lan mooy ay wax yu lenn li suñu borom subhanahu wa taala ay kàddoom la lenn li da ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jottali ñu ko loolu kii mooy sunna loolu tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ni وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم nee na moo wàcce sunna ci yonent bi moo ko wàcce moo wa moo ko wàcce ci yonent bi ngir mu leeralal ñu alquran jàpp ci alquran kon mooy jàpp ci sunna ñoom ñaar kenn mënu leen a séparer ci genn anam loolu tax dafa am laaya joo xamante ni dafa ñëw ci soratu zuxruf suñ borom subhaanahu wa suñu borom subhaanahu di ci tënk ndigle ju joo xamante ni da koo digal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa laay jooju mi ngi ci sortu zuxruf fukk ak ñett suñu boroom di wax naan fastamsik billadi uxiya ilayk innaka ala siratin mustaqim suñ borom di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naa ko na nga ngoy na nga jàpp nanga nga téye ci lii nga xamante ni moom lañu la wax yu di alquran ak sunna innaka dëgg-dëgg ala siratin mustaqim yaa ngi ci yoon wu jub yi ci laaye ji boroom xam-xam yi biñ koy firi dañ cee tënke mbir yu bare bare bare bare bokk na ca wane guñ wane ne suñ borom subhanahu wa taala tasgiya na yonent bi maanaam sellal na ko ba fu sellal ki mën a yem digal gi nga xamante moom la ko digal mu jàpp ci alquran da koo digal mu sax ci jàpp ci alquran mu digalaale ko xeetam tamit fastam sikk foofu dañ koy firee kon saxal di jàpp ci alquran ndax soo ko defee te feek yaa ngi koy def te yaa ngi ko defoon ndax yaa ngi ci saraatal mustaqim suñ borom subhaanahu wa taala waxaat ci jeneen laaya ju nekk ci suuratu shura aaya fukk ak juróom di laaya ju mag laaya joo xamante ni ibnu kathir mi ngi naan jenn laaya joo xamante ni fukki baat moo ci nekk fukki wax jenn wax ju nekk mën naa demal boppam nee na amaatul ci jeneen laaya judul ayatul kursi judul ayatul kursi falidanika fad wastaqim kama umirt wala tattabic ahwaahum وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة الحجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير suñu borom subhaanahu wa taala bi mu ci laay jooju dafa jiital yonent yi nga xam ne moo leen yónni woon jox leen sharia muy ulul azmi min ar rusul wane ni fi jógee tamit seenu xeet dañoo taqalikoo gannaaw ba ñu yoree ay téere muy wax yonente bi sallallahu alayhi wa naa ko na wax sa xeet nag nañu taxawal diine nañ ci jàpp te bennoo bañ a tàqalikoo ndax tàqalikoo gi nga xamante ni xeet wi buñ ko defee bu du woon li yàlla di xeetu sayduna muhammad nii dina leen yeexal ki di mbugal dinañu bugal ci àdduna mu ni nag ci topp sharia jooju ak ci bennoo googu fa lidalika fadu na nga woote nga jëme ci loolu na nga woote jëme ci xablullahi ci buumuk yàlla gi nga xamante ni moo mën a benn la xeet wi muy alquran mu ni wastaqim kama umirta te na nga jub ni ñu la ko digale wala tattabi ahwaahum te bul topp seeni bànneex lan mooy bànneex bànneex mooy li mooy li tàqale xeet wi kenn ku ci nekk am sa yëf yi bopp joo xamante ni àdduna nga koy askanale ci walla diine kenn ku nekk am luñ lay am lu luñ lay màndargale kenn ku nekk am lu ñu lay xàmmee te dara tegu ci ci alquran ak sunna loolu mooy tàqale xeet wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom ni ko wala tattami ahwaahum bul topp bànneexu kenn xalaatu kenn lan lay topp kon na topp waxyu na topp alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa suñu boroom nee na ko neel man sañu maa topp lu dul yu yonente bi sax sallallahu alayhi wa sallam sañu la topp bànneexu ba kanam sañu topp ay xalaatam kese déedéet noo tax mbir da am am saxaabi ñëw di ko ci laaj mu ni tekk taxaw lan lay xaar dafay xaar ndigal ñëw wax yu ndax moom sañu la topp ay xalaatam kese wax yu dong la sañu topp suñ borom subhaanahu wa taala daf ñoo jox ab catalogue jox ñu garanti jox ñu alquran li ñuy musal lépp nekk ci mu garanti ko kon suñu bëggee mucc nañ jàpp ci alquran te bañ a topp ay bànneex mboolem ñu fi gis ci diine mu tàqale nit ñi alxawaa ay gént la ay ay leneen ak leneen yoo xamante ni saxul ci alquran ak sunna te loolu day tàqale xeet wi dafa taxoon la nga xamante ni suñ borom subhanahu moom la doon dawloo sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam day am ci laaya bi mu ni ko te na wax ni gëm naa li yàlla wàcce ci ay téere te liñ ma digal mooy ma maandu ci seen diggante yàlla mooy sama boroom mooy seen boroom yàlla mooy boroomu ñépp ku nangu mooy sa boroom ci nga nangu ku nanguwul mooy sa boroom ci force wala hu aslama man fi samawati wal ardi tawan wa karahan moo xam ku nangu moo xam ku bañ ndax ci suufam ngay dund ci suufam ci ngay daagu ci ngay faatu ci lañ lay denc kenn mënu ci dara suñu borom subhaanahu wa wax ci laaya ji tamit ni lanaa amaluna wa lakum amalukum kenn ku ci nekk la mu jëfit la ko yàlla di fay laa xujjata baynana wa baynakum ginnaaw lii nag ba mu leeree naññi amatul ak layooguy am diggante waa ahlul kitaab ak diggante diggante diine lislaam li ñu tuddee li ñu tuddee maanaam ci ay dialogue islamo-chrétien loolu ci lan la tegu suñu borom subhaanahu wa taala nee na leen ñëw leen ci dara loo xamante ni kii moo ñu boole nañu jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak dara loolu bu amatul la xujjata baynanaa wa baynakum yàlla moo ñuy dajale ëllëg wa ilayhi l te ci moom lañuy mujje mbokk yi suñu borom subhaanahu wa delluwaat di wax ci suuratu Ali Imran di sant xeet wi yépp ni téeye leen ci buumuk yàlla gi waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu téye leen ci buumuk yàlla gi te bu leen tàggoo te bu leen tàqalikoo te bu leen tàqalikoo واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سن بروم سبحانه وتعالى دي وقت لا يجو ماغ جوجو نك سورة آل عمران waatasimu na ngeen ngoy na ngeen jàpp al i'tisaam buñ ko doon firi mooy nga jàpp ci dara pour mucc mu ngi jóge ci al isma mooy nga ngoy ci dara pour mucc ki nga xamante ni dafa nekk ci ab teen ñu yoor ko ak buum te buum ga di genn mu téye ca buum ga ñu di ko jukki di ko lugat loolu mu def noonu mooy ictisaam suñu boroom subhanahu wa taala nee na nañu jàpp ci buumuk yàlla gi te bu ñu tàqale ko buumuk yàlla gi leen mooy alquran ak sunna foofu tamit dafay wane ni feek ñi ngi ci alquran ak sunna du ñu tàqale di wane ni tamit ak tàqalikoo musiba la ak tàqalikoo musiba la fenn fu nekk ku nekk féete fa kenn ku nekk ak la muy dox <coughs> <coughs> nee na loolu <coughs> ak tàqalikoo ak musiba la ak tàqalikoo tamit dafa nekk musiba suñu borom ni mu ko leerale ci aaya bi nee na fàttaliku leen xéewalug yàlla gi mu leen defal jamono ji nga xamante ni yéen a ngi nekkoon ay noon mu xettali leen ca loola ba ngeen mujj nekk ay mbokk kon ñu yëg ni kon tàqalikoo kon ndekete musiba la ndax nekk ay mbokk ak xéewal la nee na dafa mel ni da ngeen nekkoon ci da ngeen nekkoon ci buntu ci buntu kàmb goo xamante ni sawara moo fi nekk yàlla daal di leen fay xettalee ba ngeen nekk benn kon mbokk yi suñu bëggee xettaliku nañ fexe ba nañ fexe ba nekk benn suñ bëggee xettaliku tamit nañ fexe ba jàppoo am na nag ay mbir yoo xamante ni dafay wane ni kii dafa jàpp ci alquran bu nekkee ci société tamit dañuy xam ni société bi dafa jàpp ci alquran ñii dañoo téye alquran kenn ku ci nekk ci ñun na ci fexe natt boppam ak jàppam ci alquran ak ak téyam ci alxuraan ci fan la toll bi ci njëkk mooy nga gëm alquran lépp lu mu xabaare nga gëm ko alquran nag nekkul ni lépp lu ci ñëw c'est forcément ñun dañ koo war a xam ñun ñëpp déedéet waaye dafa am ci misaal ay aaya yu leer nañ am ay aaya yoo xamante ni dafa lënt suñu boroom subhaanahu wa nee na ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñoom ñoo mucc mooy ñi jël aay yu leer yi yi nga xamante ni hunna ummul kitaab di ko fiire aay yu lënt ya lu tax ndax buñ ko fiire sofaanu aay yu lënt ya kon ak salfaañoo dafay am ci alquran te ak salfaañoo amul ci alquran nee na kon ñooñu yoo mucc nee na nag waaye ñi nga xamante ni fitna lañ bëgg te seen xol ak jàng def cee nekk jëm ci bànneex ñoom ñooy jël aaya yooyu di ko taawil di ko fiire neneen loo xamante ni dafa wuuteeg aaya yu leer yi te mu ni kenn xamul firiwin yooyu firi aaya yu leer yi kenn xamu ko dëgg-dëgg xam ku dul suñ borom subhaanahu wa taala ñun ñi koy jàng kon xaj moo nu war loo tax suñ borom subhaanahu wa taala waaye nag ñi géeju ci xam-xam yaquluuna bi bihi dañ na ah ñun de gëm nañ ko lépp ci yàlla la jóge lépp ci yàlla la jóge mbokk jullit yi suñu boroom subhaanahu wa misaal bi ma ci joxe rek suñu boroom subhaanahu wa ay tuuram ak ay melokaanam li nga xamante ni mele na ko bopp melale na ko boppam ci alquran est-ce que suñu xel mën naa dem ki ba daj melokaan woowu naka la mel déedéet nan la ñuy def comme que yàlla saxalal na ko boppam nangam gii la ko waxee nañ ko gëmee noonu aman naa bihi gëm nañ ko kullun min indi rabbina lépp nga jóge ci yàlla ndax suñum xel mënu faa yegg nee naa ci kenn ku ci nekk ci ñun li nekk ci ay cëram rekk ay cëri boppam rekk li ci ne li nekk ci bëtam bi walla liy daw ci deretam li ci nekk ci ay xeeti matière ay xeeti leneen ak leneen ak leneen mënu koo xam mënu koo peek kooka naka la mën a peege melokaanu suñ boroom subhaanahu wa ñi jéem a peeg melokaanu suñ borom subhaanahu wa walla ba tax ñuy neenal lenn ci ay melokaanam dañoo dugg ci njuumte ci bunt boobu mooy lan jël aay yi nga xamante ni dafa lënt lu lënt mooy loo xamante ni doomu aadama mënu koo comprendre di ko jéem a firi yi weneen firi yi boo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala waxewu ko noonu kon lépp lu ñëw ci alquran dañ ko war a dëggal dëggal lépp lu ñëw ci alquran dafa bokk ci mandarga yi nga xamante ni dafay wane ni kii dafa jàpp ci alquran mbokk yi bokk na ci li nga xamante ni dafay wane ni nit ki dafa jàpp alquran mooy day jëfee alquran li mu làmboo bépp ndigal bu ñëw ci alquran daf koy jëfee alquran it lépp lu mu tere da koy bàyyi bu ñetteel ba ci màndarga yi wane ni nit ki dafa jàpp alquran mooy nit ki daf koy jàng daf koy jàng day jàng alquran ak di ko setantal di fexee xam li ci ne di fexe xam li ci ne ak di ko jëfe loolu daa bokk ci màndarga yu wane ni kii day jàng alquran daa bokk ci màndaga yu wane ni kii dafa dafa jàpp alquran te nañu yëg ni suñu boroom yonente bi sallallahu alayhi wa daf ñoo kalaameek moom daf ñoo kalaameek moom de lan lañu kalaameek moom وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا suñu boroom subhaanahu wa taala yonent bi dafa ni ko ay yow sama boroom sama xeet wii de dañoo gàddaay alquran yonent bi sallallahu alayhi bu daan ñëw di firi alquran ko jéem leeral yéefari dañ daan ñëw di ruube di ruube laa tasmau li hada alquran kii walgaw fii nekk ci ay wax yeneen ak lan ndax bëgguñu koo dégg loolu mooy lan maanaam ñoom dañoo gàddaay alquran bëgguñu koo dégg bëgguñu koo jàng bëgguñu koo jëfe loolu mooy kalaameb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon daa bokk ci mandarga yi wone ni nit kii dafa jàpp alquran mooy mu jàng alquran ak di ko settantal ak di fexe dégg maanaa أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها suñ borom subhaanahu wa nee na mu ndax waaye duñu ñu settantal alquran am dañ koo dañ koo tëj ay dënn dañ koo kaste ba mu jëm ci ay dënn yoo xamante ne alquran mënu caa dugg mbokk yi gis nga aw lay amuñu ko kenn ku nekk yor nga jumtuwaay bu ñu tuddee kii di portable boo xamante ni la ca nekk ci ay xeetu ay technique ak ay jëflante yoo xamante ni alquran a ko gën a jafe fuuf gën a ko gën a yomb alquran a ko gën a yomb fuuf waaye maanaam yitte dañu jox loola moom lañ joxul alquran waaye suñ ko joxoon alquran dinañ ko mën wala suñ ko joxoon alquran dinañ ci mën dara te loolu nag dafa law ba àgg ci diine ji yépp démb rek la bàyyi Abdou di nettali benn waay bu ñëw ci dëkk jullee ca jàkka ja gis jàkka ja xaw a waar lool mu ni leen seen jàkka ji dama bëgg ngeen wax ma lu koy defar ñu ni ko 3 millions 500 mu yëkkati 3 millions 500 jox leen ñu defar jàkka ja ba jàkka ji ni boy waaw waaw nee na mu dem ba jëmmi jamono mu daal di ñëw ni seen dëkk bi damaa bëgg ngeen indi li ma fukki waxambaane yoo xamante ni dañoo bëgg a tukki dañoo bëgg a dem bitim réew ku ne na joxee dig 500000 téeméeri junni nee nañ indi fukki waxambaane kenn ku nekk ci lu mu gën a gaawee dajale ne 500000 ba ñu dajale ko muy cinq millions ba ñu yox waaja waaja xam naa dafa mel ni bàyyi ma war bañ ko joxee xaalis bi mu daal ni ko waaw kay léegi man sama 3 millions 500 man jël naa ko <laughs> léegi nag 1 million 500 bi ci des moom bu ngeen demee ngeen xool ni ngeen ko séddalee di ngeen ko séddalee seen biir mooy gis nga dañuy domb dara ci diine di romb dara loo dañ koo joxul yitte waaye suñ ko joxoon yitte ñun ci suñu bopp dañ koy mën a defale noonu naka noonu tamit ci alxuraan man mënumaa ijji man feruma ijji feruma ijji man mënumaa jàng saa sàng man mokkaluma nàngam lu tee nga nekk ca di jàng alxuraan dafa amul pertement benn waay doom ji dafa ñëw ni ko bàyyee man dama laa gis ngay jàng rek te li ngay jàng yow doo ci mokkal dara xam nga mag yi nag ku dem ba àgg ci yenn at yi ak mokkal daf lay jafe léegi mu bëgg a jàngal doom ji alquran nan lay def nit ku ko jàng fekk na góor gi day jaay dafay jaay këriñ mu ni ko jëlal peñe bi nga dem rootal ma ci ndox ca géej ga doom ji jël peñe bi muy natte këriñ gi dem ca géej ga ni ma ngi tànk ndox andil baay bi waaye ku ne xam na ni ab peñe moom du téye ndox bu tànqee ba génn rek fu mu yëkkati rek mbodd mu ñëw wax ko mu ni ko demal tànqaat mu di ko def di ko def di ko def di ko def di ko def ba sonn mënta tànq mënta indi genn xond mu daal di ñëw ni ko ah, man daal damaa tànq-tànq ba sonn waaye andiwuma dara ci ndox mu ni ko waaye peñe bu mel nan moom laa la joxoon mu ni ko ah peñe bi de bi may dem daa ñuul kukk waaye fi mu toll mi weex tàll mu ne ko nag alxuraan nag nii lay def nit même boo koy jàng te mënoo koo dégg daf lay sellal daf lay sellal daf musal daf lay téye daf lay yiir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci benn xadis naan ki nga xamante ne dafa man alquran di ko jàng day dem bay ànd ak malaaka yi bind wax yu seen garaat borom xam-xam yi ànd googu firee nañ ko du bari nee na day am seen garaat nee na dafay ànd ak ñoom nee na ki nga xamante nag moom mënula jàng njàng mu gaaw ko xëy na amaana wala day ijjantu nee na kooku ñaari yool lay am yoolub ba nga xamante ni ca la nekk ak la nga xamante ni mooy ki yoolub euh, euh, jàng ga mbokk yi bokk na ci liy wane ni nit ki dafa jàpp alquran mooy de ngir am ci dara kon ndonal yonante bi sallallahu alayhi wa mooy alquran mission moo nekkoon fexe ba nit ñi texe képp ku nekk ci alquran kon ku jàpp ci alquran faw nga di ci woo nit ñi moom la ko suñ borom subhanahu wa di wax ci suratu naxl udu ila sabili rabbika bilxikmati walmawidati alxasana suñu boroom di wax yonent bi sal naa ko wooteel ci sa yoonu boroom ci xikma ci xarañte ak waaraate waaraate gu rafet imaam aljawzi dafay wax ni alxikma bokk na ci liñ koy firee ci aaya jooju mooy alquran kon na ngay woote di jëme ci alquran bokk na ci tamit li nga xamante ni màndarga li yuy wane ni nit ki dafa jàpp ci alquran mooy fexe ba def ko ab attewukaay mbokk yi atte yi ñu fi topp nii yépp ay raaf ay laïcité ay ay idéologie yu ñu topp xeetu xalaate yi ay communisme ay leneen ak leneen ak leneen yépp ay raaf ndax lan ndax ñi ko bind seeni xalaat rek lañ am moo taxit bu tayee buñ ni lii baax na subaa ñu ni lii baaxul ndax lan ndax seeni xalaatin ak seeni gëmin ci li ñuy sukkandiku di tër loola waaye lii nag ki ko tër bind ko mooy ki bind doomu aadama xam fa mu tàmbalee xam fa mu jëm xam ni daa war a dund fii ci àdduna te am na geneen dund gu koy xaar ci tër loolu moom moo tër alxuraan moo tër aw tëralin kon nañu xam ni lu ñu atte woo te atte wuñoo alxuraan ay caaxaan la ñu atte woo ñaar na nga fi am waman lam yaxkum bi ma anzalallahu jooju ñun ñëpp la concerné képp ku atte woowul ci li yàlla wàcc xamal ni tooñkat nga xamal ni def nga ak kéefar xamal ni def nga ak kàccoor koo xamante ni dafa jàpp ni moom alxuraan jii moom jamono da ko weesu wala euh, mënatuñ koo atte woo ndax dëppootul ak kii kooku moom dafa weddi waxi yàlla kooku moom daa génne boppam diine ci li ñu soxla nag ci ñi nga xamante ni atte woowuñ alquran mooy ñu wommatu nangu atte yi nekk ci alquran ba bu doon atte woo tey ñu xam ne lii la ñuy woo mooy al al inqiyaadu wal xuduu lahu dañoo war a tàggat suñu bopp ngir nangu lépp loo xamante ni rot na ci alquran ngir nangu lépp loo xamante ni dikk na ci alquran mbokk yi li may tëjee gannaaw ba ma ci mi jégguloo bu baax a baax a baax mënuma woote woo benn yoon ni thème bi li mu laaj ki mën naa ko euh, sori naa sax ki di mën a matal li nga xamante ni ki di moom la laaj lépp waaye lii ak jéem la woon goo xamante ni ab dongab daara moo ko doon jéem di ko fàttalanteeg ay mbokkam li ma leen di diggal di ko digal sama bopp mooy nañu jàpp alquran nañuy jàng alquran mbokk yi nañuy jàng alquran caaxaan baaxul wallahi ku xëy gis sab kaamil gis ci poussière gis ci pënd war ngaa tiit kaamil bi ngay jànge bu demee ba pënd nga gëj koo tijji ba mu pënd am poussière war ngaa tiit ci sa bopp mbokk jullit yi nañu jàng alquran bul xëy suba ba ngoon te sa bët bi tegoo ko ci alquran jàng alquran moo xam koomanti nekk loolu lu mu deeree nañ ko royee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te am njàng nag li tax mu tudd am njàng mooy maanaa yi nga di ko dégg di ko jëfe bu fekkee danga nga koo yemale ci saw làmmiñ rek di nguñum nguñum yi rek noonu laa ko mën a tuddee doonte kon moo tane leneen te jëfe woo ko kooka kenn du ko tuddee kuy jàng alquran ci misaal koo xamante ni mi ngi jàng yàlla di tere sàcc yàlla di tere bàkkaar sàngam tere bàkkaar sàngam tere bàkkaar sàngam te fu mu nekk teewul muy jëfe loola mu jëfe ki bàkkaar yooyu kooka kenn du ko tudde ku jàng alxuraan ma ngi koy liir kay wala muy def kii la muy def waaye du jàng ndax lii fiir alqiraa mooy nit ki bu koy jàng maanaa mu di ko teewlu di ko jëfe loo tax saxaab yi dañ daan wax naan ñun niñ daan jàngee ci yorante bi ku ñëw fukki aaya moom la lay sax moom la la jàngal fukki aaya doo jëlaat yeneen fukk lu dul nii dangaa dem ba mokkal ko ba tari ko ba jëfe ko mu soog laa joxaat yeneen yeneen aaya ñooñu nag ñoo daan jàng alquran xaqa tilaawatihi dëgg dëgg jàng ko kon mbokk yi euh, téye ci alquran mooy li nga xamante ni moo nu mën a musal àdduna moo nu mën a musal alaxira tey ci alxuraan mbokk yi moo mën a wéral saafara moo mën a wéral jàngooro yi nga xamante moo nekk ci biir ay dënn te mën a yóbbu nit ki safara wala ayaatu billah waaye moo mën a wéral jàngooro yi nga xamante ni sax ci biti la nekk alxuraan saafara la foofu laay daanale mbokk yi juróom-ñaari fatiha juróom-ñaari fatiha xajul ci jàngoro juróom-ñaari faatixa yu sell xajul ci jàngoro waaw waaye nag ki yenn saay ah nit mën na koo def nag du wér waaye xam nga jaasi boo ko jëlee teg ko ci loxo bu am doole am kàttan la nga ca bëgg lépp mën nga ko am waaye boo ko joxee koo xamante ni àttanu ko sax yaakaar naa fa nga ko tëral du ko fa mën a jëlee sax ba di ko fajee soxla daa am benn waaye bu ñëwoon ci imam yi dafa daan imam yi ku amaan lu mu daan tawat ci yaramam bu ñëwee ki ba jàmbat ko daf koy jàngal faatiha mu daal di wér waa mu dem ni moom day faj nit ñi ñëw ku ñëw mu jàng faatiha jàng jàng jàng ba sonn waaye kenn du wér waaye du ca faatixa ja ca kay jàng faatixa ja abu saïd alxudri yi dafa tukki woon saxaaba yi dañoo tukki woon dem ci benn dëkk bi ñu demee ñu sàkk pour ñu ganale leen mais ganale wuñ leen ñu toog fa ak ak tumuranke gu xaw a doy waar jekki-jekki ba ci yàgg waa dëkk ba am ñu ñëw ni leen ah ndax am ngeen ab mocckat ku mën a mocc ci yéen Abu Saïd al-Khudri daal di jóg saxaabi bu mag boobu daal di ne waaw man kay kit man naa mocc ñu ni leen suñu kilifa dëkk bi moom la jaan matt te ma ngay waaj a dee mu ni leen mën naa ko mocc waaye su ma ko moccee da ngeen ma jox ak da ma jox ab géttug xat ñu daal ne ko waaw kii moom daal moom na dangar ji waxtu mu daal di dem daal di jàng juróom-ñaari faatiha jaan ji daal di wàcc kilifa ga ni sojjet daal di jóg la ñu waxante woon ak ñoom ñu def ko jox leen ak géttug xar waaye saxaaba yi ni ñu téye woon ci alquran téye ko ci sunna tax nañu ne ah ñun kat lii nag nañ ko yóbbu nag ci yorante bi ba pare bala ñu ci lekk dara nañ ko yóbbu ci yorante bi ba ñu demee ci yorante bi sallallahu alayhi wa ba nettali ko yorante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni Abu Saïd wa ma adraka annaha lu la xamal ni fatiha ak la noo def ba xam ni fatiha ak mocc la waaye suñ boroom nee na mooy wàcce ci alxuraan loo xam ne ak saafara la daan ni ko ki jël leen ko lew na leen doom te ngeen jox ma ci sama wàll ñu daal di koy jël jëfandikoo ko jox ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak wàllam kon képp ku am jàngoro bu muy tawat na taqoo juróom-ñaari fatiha di ko jàng moo xam nu mu ko jàngee moo xam da ko jàng ci ndox di naan wala da ko jàng di raayoo wala da ko jàng di ko def ak ñaanam mbokk yi lii as toq la rekk ci lu bare bare bare bare loo xamante ni euh, xajul ci benn jataay te tamit ku demee ni man xay na mënu koo matal waaye ñoo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa lépp luñ fi wax yàlla nañ ko jariñoo te lépp lu ñu wax tamit suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu ko defal ay tuyaaba defal ko suñu ay waajur defal ko suñu ay sëriñ defal ko mboolem jullit yàlla nañ ko bokk di ki jariñoo nañu gën a téye ci alxuraan nañu gën a xam li ñu yor nañu xam degré li ñu yor nañu xam valeur li ñu yor ci mooy lan te téye ci suñu fukki loxo ak juróom ni ko wolof di waxee ñoo ngi leen di ñaanal jàmm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

bi mu tàmbalee xam ne lan lan mooy alquran alquran xamle na ko wax na tamit ay turam ak jagle yi nga xamante ne bi alquran mu teg ci li nga xamante ni bi mooy yi nga xam ni mooy wane nii diw sàngam mii kat wala ñoom diw sàngam kat mooy nañ ci alquran maanaam melokaan yi koy wane loolu tamit uh, indi na ci ay tomb wane na tamit bu baax uh, lenn ci ngëneel yi mooy ci alquran ci mu daaneele mooy foofu nga xamante ni bi fi la doon wax te mooy ngëneel li jàng alquran ak jëfe ko te dëgg-dëgg sax nag loolu moom mooy mooy mbir mi ndax yi nga xam ni moom la jiital yépp yu ama am solo la waaye dëgg-dëgg mbir mi mooy ngëneel yi maanaam jeexit yi nga xamante ni bii ki jàpp ci alquran dafa koy jural ëllëg ndax bu ñuy wax muqaddima fa ñuy teere ji mooy natiija waaw booy ubbi bunt moom doo bunt rek taxaw ci waaye faaw nga ca biir la na ca biir nga mën ko jariñoo kon doyoon na sëkk rek ñu ni jëfe alquran jàng alquran ak jëfe ko dalay may ngay ànd ak malaaka yooyu doyoon na sëkk ñu jëfe ak jëfe ko day sellal sa biir ak sa biti doyoon na sëkk rek ñu ni jëfe alquran day tax nga am ay maraatib yoo xamante ni bii yu kawe kawe la yu kawee kawe la doyoon na sëkk ngi ñu ni jëfe alquran mooy lan mooy mooy jàng gi nga koy jàng yàlla dalay defal ngeen lu rëy xam ngeen ni bu ñu demee ci suratu Fatir yàlla nee ñi nga xam dañu jàng te yaakaar na ne sunu doom ji moom la ubbee jataay bi nee na ñi nga xam ne dañuy jàng alquran déer teere yàlla bi di taxawal julli juróom li leen yàlla jox mu néew mu bari ñu ciy dépensé ngir yàlla ci lu feeñ ak lu nëbbu dineen dañuy dinañu yaakaar commerce goo xam du lamb kon ku bëgg commerce goo xamante ni du lamb jàngal alxuraan te jëfe di ko jëfe topp li alxuraan di santaane yàlla ne du yem ci loolu waaye yàlla da leen di fay ba matal seenu fay dool da leen di dolli ngëneelam subhaanahu wa taala da leen di fay la jëf gin ful ko ba pare dolli leen ci ngëree la moom subhanahu wa taala yàlla nee na mooy ki nga xam ni mooy santaakoon waaye mooy jéggalaakoon mooy ki nga xamante ne bii moo mën a sant moom daa sant boppam la jikko ñu koy sant waaye tamit mooy sant ay jaamam it yi nga xamante ne bii tegu na ci yoon wi waaye ñi nga xam ne ñoo tegu ci yoon wi tamit di jàngal alquran di ko jëfee nee na moo leen di jégal seen i rëcc rëcc yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu. mbokk yi ñu ngi leen di waxaat asalaamualeykum wa rahmatullah xam naa ci njàlbeen damay doore ci li ñu fekkee ndoo muy sunu mbokk di sunu xarit al oustaz Ibrahima Khalil Niane ku ko déglu di xam ni ku jàng moo doon wax di nga xam ni dañ ko jox temu mooy ci alquran ak i ngëneelam mais di nga xam ni kuy jonjonte ak téere yàlla bi aussi moo doon wax bi ma ci neexaat cee taaral xam-xam mooy ku am yar moo doon wax bi ma ñëw léegi man a sama mag El Hadj Ndiouga Mbeng ñu ngi ko jaajëfal xam naa sax de passage ci microcentrale Sénéco ñu ngi lay jaajëfal ci turu dëkk bi yëpp bi ñu ñëw léegi dugg ci oto sëñ Cheikh Mbow Alquran mënu ma ci seen conférence bi laa jëm si ma wax ko thème bi wax ko conférencier bi moom Oustaz Ibrahima Khalil ñaan ku yaru la loolu nag yaakaar naa doy na sëkk rek pour ñëw ci li mu nekkoon du ñu commenter rek parce que loolu Amir Momar def na ko mooy ñëw na jaaraat fi nga xam ni Oustaz Ibrahima Khalil jaar na fa thème bi xam-xame na daal na ñëw na place jox na kenn ku nekk ci mbooloo mi sa wàll ci mbir mi kon Oustaz ñu ngi lay ñaanal yàlla fay la ngën gi fay yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def sunu xol sedd na guyu am nañ lu kawe sunu njort ci li la santoon ginnaaw loolu nag en tant que ku nattoo ni ko yaa jiite mbooloo mi faw ñu def benn doxant bu ndaw dañ koy arrière tuuti ñu feddali sunuy ñaan ci ñaari nit den yóbbaale ñu ci des kenn ki moom lañ doon fekk fii ci kër gi muy oustaz Alioune Guèye rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal dafa ma wax ni ma bàyyi moor bu ma leen wanee ginnaaw bu leen yam rek ci ak a baaxoon di leen teewlu ngeen di wax ni yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal kon ci catu ngoonu tàkkusaanu àjjuma la nekk di ngoon gu am lijaaba ngoon goo xamante ni bii gu ñu yaakaar ñaar gu nangu la ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal li ñu téye ci këram gi ñun xamuñu ñun ñii ñëpp am nañu ay kër yu mën a teeroo lu mel nii yàlla nañ ko yàlla jéggalal dëkkal ko aljanna yi firdawsi mi nga xam ni enrach raxam moo ko mbaar ñaareelu nit ki mooy sunu waajur Baye Cheikh Ahmad tiijaan Seck fukki at ak ñaar de compagnonnage fukki at ak ñaar mu ànd ak ñun uuf ñu uuf bu rafet man masuma toog man moom sëriñ daara Mouhamed Alioune Guèye mu wax kàddu guy wane ni daf ñuy gunge te daf ñoo ñeewantal kàddu googu yàlla seede ni rongoñam wadd moom moo ko gunge ci biir néegam kon yàlla ñu ko yàlla yërëmal yàlla ñu ko yàlla jéggalal yàlla na ko yàlla dëkkal aljanna waaye fi bàyyi cheikh wàcce la sunu waajur bàyyi sëriñ abdourahim Seck sofe dina peser samay kàddu fas ñu yéenee waxal nit lu ñu xamul ci moom ndax it nag war nañoo sedd ni ëllëg ci kanamu yàlla la ñuy toog Baye Abdou bi muy soog a toog dafa sant sama baay góor a mbeng man ak sama mag El Hadj Ndiouga nañ ko wuy si mu ne bu fa El Hadj nekkul waxal Mamour na ma wuy si ba pare jox ma rendez-vous ginnaaw gee ndekete heure la boo xamante ne bii bu bëggee wéet ak nit fa la koy recevoir bi ma ñëwee li ma wax da ma sàllaaw day woote bi de dara warulu ko lu dul rek wax la ni man sa baay la loolu dong laa lay doyee keroog bi ma toogee laa ko wax li may def ci dëkk bi mooy lan ab dëkk boo fa nekkee kilifa nekk fa même boo jiitee ñetti nit na ko kilifa gi xam ne yow lii nga fi jiite keroog responsabilité yi dama jox ci dëkk bi yépp wax naa ko benn par benn mu ma xam nga ni lii kay xam ko sax dafa baax ban ca jógee nag lu ñëwaat rafet keroog bi complexe islamique Cheikh Ahmad Dak Seck di conférence ñu jóge fa di teg xeer wu njëkk dañoo teg xeer wa caag muy dem man oto yi tasaaroo nan may seet ne oto moo may yóbbu ma gis oto Baye Abdourahim taxaw ci biir oto bi am ñu def nii def ma siñ ni ma nii maam naa ñëw wuy si ma ñëw xam lu ma doon doyee lan moo tax ma taxaw mu ne waaw kay waay dama laa gis ci mbooloo mi bëggoon laa nuyu gisaatuma la ma ne naa taxaw nuyu la soog a dem ah bi ci mujj ca fa laay jeexale ci Baye Abdou dañu dem di ko tàggu ci conférence bii ndax jamiyatul birri wal ihsaan jamonoy sunu waajur oustaz Alioune Gueye ba fii noonu lañuy doxe mooy du rek dañuy jàngal waaye kiñ ñu doon jàngal dafa sonn ci pour yar ñu ma dem fa ne ko Baye abdu keroog man sëñ Cheikh boobu alquran oustaz Moustapha Ndiaye ñoo ànd fekk fa taawam sëñ Ibrahima Seck. ak doomam sëñ Ousseynou Seck fi ma entré sax ci kër gu mag gi man mosuma foofu keroog laa fay soog kër gu mag gi nag moom ñun caabal ndëkk mi nan ko dugg nañ ci saal yi yàgg mais fi mu ñu entré keroog moom man keroog keroog laa fay soog a ñëw jàmm sante dañ ko fekk sax muy jàng alquran bi ñu ñëwee nuyoowuñu ndax taxaw ba mu am fu mu taxaw ñu soog koy nuyu ngir bañ a dagg alquran ji mu sentir ni ñu ngi taxaw mu teg alquran ji nuyu ñu saafonteeg ñun ma ne ko dañoo ñëwoon di sàkku ci yow ndigal ci suñu yëngu yi nga xam ni ñi ngi koy am buntu kër Oustaz Alioune Guèye ci nii boo ñu def leen ñu def boo nee bu mu am ñu teg ko fi suuf mu ne aha kay aha kay dina am kay aha kay dina am kay sa law daal di ñaan ni yéen day ni ma ko mën a misaale mbaa xam ngeen ni buñ duggoon ci néeg ñu jël aw dog jox ma ngeen jël ab tibb ñu fay làmp ba néeg bi lëndëm kenn gisul sa moroom ngeen jël ab tibb sexal ma ko sa laaw dinaa ko sàqami ndax yéen ñeme naa leen waa lii nag a ah lii de ku am xel daf lay doy maam lii mooy wane ni dafa pare pour uuf njaboot ci incha allahu rabbi den uufu ndaxit ci uuf rek la ñu yar ci uuf rek la ñu yar bu ko defee ginnaaw loolu nag ma wàcc ci mbooloo mi muy jamiyatul birri wal mbooloo mu neex a jiite lan moo tax dama ne jiite ay warami xam-xam falaay laay jaar sax di leen jaajëfal sëriñ daar Mouhamed Aline Gueye Cheikh Omar Thioune oustaz Ibrahima Ndiaye oustaz Momar Diop oustaz Mam Mam Bokar Cissé oustaz Mouhamed Seck ñooñu dañoo nekk nit ñoo xamante ni bii chaque àllarba dañuy ñëw di jàngal mbooloo mi jamonoy corona bi ndee ba xam ne daje munta amati mbooloo mi mosuñoo arrêté seeni jàngale toog nañ seeni kër comme ni ko jotee ndigal waaye en ligne ñu ngi doon jàngale li ñu jàngale lépp aussi kon assatise yooyu may wax ñi leen di jaajëfal ci yéwén ci seen xam-xam di lamb seen poche di ko ci def mbooloo mi jamonoy mbas mi xam nga dafa am lu ko mayoon mooy jàkka ji jumaa ji ajuma ji ji nga xam ni dañoo njëkk a wàññi nit ñi dañ ne woon ñaar fukki nit ak ñeent lañ jox ndigal ñu julli ca jumaa ja ci yooyu ñaar fukk ñeent man ci laa bokkoon ci turu fi ma nekk muy jàkka ji ma dugg ci group gi ni mbooloo mi dañoo jot ndigal ni na kenn ku ne julee sa kër li ma kontaan loo mooy dugg naa ca jumaa ja dëgg la de fekk naa fa lu ëpp ñaar fukki nit ak ñeent yin maye woon waaye fekkuma fa kenn ku bokk ci mbooloo mi ku leen rax lan moo tax dégg ndigal am discipline aussi kon mbooloo mi aussi ñu ni dafa nekk mbooloom dimbalante ci lu baax ak rafetal dimbalante ci lu baax ci jàng ak jàngalante mais aussi mbooloo mi ci social mbooloo mi dañoo toog ci jamonoy mbas mi ñu gis ni restez chez vous la ñu wax mbooloo mi ni ñun ay doomi Thiénaba lan charte bokk ci mooy da nekk doomu Thiénaba wala nga dëkk wala nga fiy liggéey suñuy financement suñuy poche lay jugee mais ak sama mën a laaj gu bëri bu ma duggee ci groupe gi ni soxla na nangam maam mbir mi day taw te ci poche lay jugee loolu yaakaar naa ay doxantu yu bëree bëri def nañ ko di jaajëfal suñu mbokku jigéen ñi Amira Soxna Xuja Jang ñi ngi lay jaajëfal yow jigéen ñi ngeen ko àndal yéen ay jigéen ñu mat góor ngeen ndax bu ne cotisation di ngeen joxe bu ne jàng kenn du leen fa jiitu seen conférence bi passé mois d' avril ñu xamee woon ko ko bi ñu koy programmé dañ ne woon ci jamonoy mbas mi dañuy euh, koy def en ligne bi ñu yombalee nit ñi pour ñu mën a commencé di daje ndànk-ndànk teewul ñu jël Cheikh Omar Thioune Thiénaba TV ñëw fekk ñu kër Cheikh Omar Thioune mu def conférence boo xam moom aussi ba léegi waa dëkk bi ñu koy commentaire. DG Alpha Ibrahim mi nga xam mooy monté lépp lu jàng jàll te Thiénaba TV daf ma wan yar bu remarqué ak dal ak xam-xam ci Cheikh Omar Thioune kon yàlla nañu yàlla sàmmal ñu leen yéen sunuy fierté ngeen di jaajëfal waa dëkk bi yëpp ñi nga xam ne yoon jóge ci yeneen dëkk seen jaajëfal dama ko teg ci loxo sunu baay oustaz Madiara ñaan mi ngi nii toog magi dëkk bi ñi ñëw dinaa jël seen jaajëfal teg ko ci loxo bàyyi mortaala Talla Ñang mi ngi nii toog sunu maam yi ak sunu yaay yi naa ko jël bu ma neexee sax teg ko ci loxo maam Khady Guèye ah, bu ma neexee naa ko teg ci loxo sama tante ndey géy bu ma neexee teg ko ci loxo soxna Ndeye Mati fay ak ñin ko séqal mais imam Alpha li tax may mujj ci yow moo tax dig ma may ma njëkk a jaajëfal waa organisation sëñ Alsaan Mbeng na ca bopp ba ànd ko ak sëñ Ibrahima Ndiaye ak sëñ Aliou Mar Seck mais ñu defee ko ci façon bu mucc ayib yaakaar naa boobaag léegi déggu leen yéen waa organisation toog leen seeni déplacement dafa bari loolu mooy lan mooy rek yar bi ñu xamee mbooloo mi ci la sunu xale yi organisé imam alfa dinaa la nuyu ci ci ñetti tur dinaa la nuyu. ci turu bàyyi sëriñ Abdourahim ndax na ngeen demee ci mbokk dinaa la nuyu ci turu chef de quartier yi nga xam ni bi leen di implanté keroog jëlee cen ba ci ñeenti quartier yóbbu ko ci fukk ak ñaar ca njëkk laa implanté tur woowu dinaa la ci nuyu dinaa la nuyu ci turu dëkkandoo jamiyatul birri wal ihsan duñu la tàgg fii sa miiru kër la dañuy ñëw teg suñu matériel du la wax sax ni am nañ bis ndax gëm li nga ñëw yaa ngi dégg kon loolu ñu ngi la ciy jaajëfal Thiénaba TV di télévision bu am disipline di télévision bu lislaame di télévision bu mën a taalal ay caméra magu islaam xam ne li ñuy dawal kuy mag di jullit mën nga koo seetaan ci doo zappe DG Alpha Ibrahim ñu ngi lay jaajëfal di wax ni fi nga teg sa tànk foofa la mbay Babacar Niang ci wàllu sonorisation moom it tey laa ko woo ngir gëm ni bu ma ko woowee day ñëw ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal sëriñ Daaru Mouhamed Alioune Gueye damay ñëwaat ci moom soo ko jox euh, sëñ Alpha Ba mu ñaan ca buy ñaan nag buy ñaan day ñaanal buy ñaan tey del ñaanal waa Palestine ci catu ngoonu tàkkusaanu àjjuma ci ñu ñoo tal toog fii ay conférence ñu ñoo tal waaxu dem ca jàkk ja dem ñëwaat ñu la suñ soxna di am doom war a am doom ñu jël oto dem hôpital ñëwaat wala toog sunu kër yónni sunu doom ca gëm day ñëwaat mais waa Palestine nu ñu def ñoom bu ñu accouché ci suuf ay bombardement lañ koy defee ku yónni sa doom mu dem bitig ba xamu ba xam dina ñëwaatam déet xale bu génn sa baay génn tàggu la ni maa ngi dem ci programme mu diine xamu ba xam di nga gisaat sa baay wala déet kon ñooñu tey incha allah imaam Alpha la ñuy jox mu ñaanal ñu ko ci loolu. baay Pape Kane Baye ci mag ñi nga xam ni muy Baye Pape Kane di Baye Alaja ak sunu góor yooyu nga xamoon ni suñ suñ yi meloon na leen. ajjuma ji nga xam moom laa ko mujj a gis sëriñ Daara Mouhamed Alioune Gueye moo fa jógee ni ma sëñ Mamour foo ne ma ne ko maa ngi nii dem jumaa jam mu ne ma loo mën a jàpp boo paree na nga bàyyi ko ca dem ci bàyyi pap bi ma ñëwee lan la ma wax waaw koy waay nii la waay nii la waay yéen bu la gëj a gis sama xelu du dal sëriñ Daara moom mooy naay bu amir di responsable daawa sa liggéey ci ni mu xam-xamee ni mu tëre programme yi ngeen di gis moo koy tëral ni muy xam-xamee ni muy tënkoo ñu ko ciy jaajëfal mais jaajëfal jooju jëpp xam nga moo ci gën a am solo mooy kër gi nga xam ne dañoo yaakaar ne ñun ak moom ñoo ci bokk yem ñun suñu yoon nekkul ba xam sëriñ daara mi ngi fi wala déet saa suñu bëggee jëfandiku dañuy ñëw ubbi kër gi jël basang yi toog jëfandiku attaaye dem kon ubbi gi mu ñu ubbil kër gi ñu ngi ko ciy jaajëfal kon daal ñi ngi li moo nekkoon kàddu jamiatul birri wal bu ñu xool suñu première édition sëriñ Daaru Mouhamed Aliou Gueye laa ko joxoon ngir naw ko ngir xam ni wax dëgg yàlla bu ma geesoo gis ko bu ma neexoon sax tëdd nelaw ca xam ne lépp ngi dox parce que lépp am euh, technique ak xam ak yar gu muy doxee kon daal imam Alpha njaboot gaa ngi noonu ñu bàyyi la rek nga defal ñaan waa Palestine bu ko defee incha allah ñu yëkkati jotaay bi. di yëkkati suñu ziyaara ci sëriñ. Abdourahim mi nga xam ni mooy xalifa bi di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér bu tànkam oyofoon bu ñëwoon fii day jël kàddu sant ak njabootam ndax moom ñun ñépp bokk nañ xam ni xaritu Oustaz Alioune Guèye la woon daana am ay waxtaan yoo xam ni moom ak oustaz Alioune walla sëriñ ma dikke ak oustaz Alioune Guèye am na ay déeyante yu ñu daan faral di déeyante buñ paree kenn ku nekk reese reegu ndaw ñu delluwaat ci seeni mbir loolu lu yàgg la woon loo xam ni ñoom ñoo ko dund di ko ñaanal kon di ñaanal mbooleem ñam bokk nekk fële moom oustaz Alioune Guèye yal na yàlla yërëm leen yal na yàlla jéggal leen ak baay cheikham moomee nga xamante ni ak mbaax rekk la ko xamee waaye di yéegal ñaan gi ba ca maam Mamor Gueye ak ñañ ko bokkaloon lu tax ba tey jii ci Baye Abdourahim laay nekk soreeguma ko ndax ñépp xam nañ ni man mii am naa bàjjen buñ indi fii ci dëkk bi muy soxna Xadi Ba maam Alpha du jur ko bim dikkee itam xarit la woon mbokk la woon ci Maam Mor Guèye jàpp naa ni bu ñuy wër ay turandoom fii ci dëkk bi kenn du ci mag soxna Xadi Ba mii toog di soxna Xadi Guèye bu neexoontee dañ koy wooye soxna Xadi Ba Guèye ni ñuy wooye soxna Xadi Ba Seck ndax soxna Xadi Ba Seck sama bàjjen Xadi Ba lañ ko tudde soxna Xadiba Géey mii sama bàjjan Xadiba lañ ko tuddee muy kóllëre goo xamante ni cay maam la woon di dox ba suñ jonn yàlla yi tey jii loolu moo tax ma ni même bu fi sëñ Abdourahim ñëwoon itam ñaan gi moo koy jël ñaanaan ko ak njabootam ñaanal ko ay doomam duñ ci guddal ndax waxtu wi eh, eh, gand nañu ba pare waaye waxtaan wi yow mii nu ko doon waxtaanal ak ñun ñii ñu ko doon waxtaanal yàlla na nu yàlla dimbali ba ñu jariñoo ko ba ñu xam ni leneen lu dul alquran loo ca yenu yenu yenu mënoo caa mucce sa mucc mi ngi rek ci dikk dikkaat ci biir alquran gëstu ko li ci yàlla wax lépp nga def ci la nga man la nga ca tële moom mu xam ne yow da koo tële waaye bañoo ko ñaan itam ñun ñépp nañ ñaan nañ ñaanal Oustaz Alioune Guèye ak njabootam Mouhamed Guèye mii ku jara ñaanal la yal na yàlla guddal fanam yàlla wéral ay cëram ak njaboot gépp nag Mor Mbengue li nga wax fii lépp dégg nañ ko te lépp dëgg la ñi nga ne nañ leen ñaanal ñëpp ñëpp a jara ñaanal fi mu ne ñii fi toog ñëpp daanaa wax naan bu oustaz Alioune Gueye dellu si waatoon aussi xëy na yére yi la dul xàmmee mii daa bees sama ginnaaw wala waaye ñii ñoo fi daan toog yére yi dong lañ soppi waaye jëmm yi moom jëmm yii ñoo daan ñëw di déglu si yàlla Euh, yàlla daan jaarale euh, lantinooru déglu boobu ci moom nañ bokk ñun ñëpp jàng ñetti fatiha fatiha komkam kam mën naa wàcce dangari jaan fatiha mën naa nangam mën naa nangam mën naa nangam nañ def ñetti fatiha julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yàlla Palestine gii nga xam ni ñi ngi ci ay coono yoo xam ni ay ay jaami yàlla yu doyadi ay jaami yàlla yu gëmul lii ñuy ñu ñu doon wax nii muy alquran waxuma sax gëmuñu ko waaye lu ñu man dinañ dinañ ko ci def ngir xeex ko te lii moom kenn du ko xeex ndax yàllaa ko wàcce te moo koy wattu yal na yàlla aar waa Palestine na yàlla jàppale waa Palestine na yàlla dimbali waa Palestine ci biir ndimmal loolu yal na ñu ci yàlla dimbali ñun ñëpp jàpp nu dimbali nu ba ñun ñëpp ñu am teraangay àddina ak teraangay alaaxira mucc ci lépp luy lore mucc ci lépp lu di gàllankoor boo xamante ni mën na noo gàllankoor yal na yàlla doxale euh, euh, ndimbalam sunu diggante ak loolu bi jaahi rasulillahi inda allahi bu ñu paree julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam audu